nuyu naa leen ziar naa leen di leen nuyoowaat fii ci seen sit internet bi ngeen bëggal seen bopp safoo ko di ko topp saa su nekk muy wasaare point com ñu ngi leen di nuyuwaat leen jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk ñu ngi leen di gis ngeen ñuy topp ci lépp luy information làmb waaye jaa ngeen jëf foofu la fi ngeen teg seen loxo foofu la mu bëgg nag ñi nga xam ne abonné gunu ñu abone ci site bi. activer cloche bi li ATM di wax naan nopp yi ngeen activer ko ba mu wóor leen ne leen activer ngeen ko ba lépp lu duggati rek tey njariñ ci wàllu làmb ñu mën koo jariñoo jërë ngeen jëf tey mbokk yi ci seen numéro jàngat làmb ñu ñëw fa yéene jàngat làmb ci ñaari anam ñaari mbir muy xew-xew boo xam ne senegal gépp teg nañ ci seen bët di génnu àdduna ki nga xam ne moom mooy mag ci Bombardier di Pape ca di magam di xaritam di bras droit am di manager am di léppam mën naa ne taxawu ko sax taxawaayu papa démb ndeysaan ca sarax sa dégg nañ témoignages yi mbër yi manager yi supporters yi fans club yi amateurs yi ak lu gépp mais autorité étatique yi autorité autorité yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk làmb ñoo téye làmb ku ci nekk la nga seede ci moom moom mooy xol bu rafetam moom mooy gëm gum gëmoon liggéey bëgg gum bëggoon mbokk ñu koy ñaanal fi nga xam ne fa la dem ca këru dëgg ya yal na ko suñ borom àtte ci yërmandeem te jéggal ko ñuy rafet njort ci bu moom bu baax a baax nag ndax nit génn àdduna ñu wax ci moom wax ju rafet loolu rekk doy na lépp ñu jàng ci nag lu luy garaaw lu bari ndax démb mën naa ne làmb yépp fa teew taxoon njàngatu tey bi ñuy am taxaw seetlu ci moom amaat beneen taxaw seetlu ci sunu mbokk boo xamante ni sunu mbokk làmb la sunu mbokk jullit la sunu lépp la muy Jules di Junior mi nga xam ne nii guddi yi ñu toll mu ngi ci feebar bu metti ñu koy ñaanal yal na yàlla fëgg boppam ba mu jóg delluwaat ca liggéey ba delluwaat ca njaboot ga yàlla am na ko mën na ko yel na ko def buñ ko dooree ak Pape ja mi nga xam ne mag la ci Serigne Dia Bombardier bokk ci làmb bokkoon ci làmb sax laay wax Pape ja moomu gis nan bi mu génnee àdduna taxawaay bu rafet bi nga xam ne axlu làmb yépp taxaw nañ ci bu ñu ko commencé ci mbër yi gis nañ fa Modou Lo ñëw na fa jaale si Tapha ñëw na jaale si Baboy ñëw na jaale si rëg-rëg mi nga xam ne fan yépp mu ngi doon dékk Bombardier sax bàyyi na lépp lu jàppoon ñëw jaale si gis nañ fa aussi dégg nañ fa yëkk ni ñëw na fa dégg nañ fa ku ci mel ni Eumeu Sène donc dégg nañ fa guy gi muy ay mbër yoo xamante ni nii ku nekk bawoo nga fu ne uniquement ngir ñëw mbuur jaale si ki nga xam ne mooy mu Mohamed ndaw Tyson moom it ñëw Bombardier insister à ce ñu jox ko kàddu mu wax loolu day wane ne mbëri jàmm moo xaj seen diggante jàmm moo war a am seen diggante jàmm moo war a nekk seen biir manager yi aussi taxaw fa taxawaay bu am solo ak lu làmb gi yépp laay wax waa CNG ak seen délégation njiital président Alioune Sarr gis fa aussi promoteurs yi ci njiital Pape du Fall gis fa aussi manager yi suñu papa nekkoon fa muy Maxime mbergan Baye Laat nekkoon fa donc basiiru Baabu nekkoon fa di seen président kon mën naa ne ax lu yaab làmb yëpp a fa teew loolu nag mbokk yi jàngat bi ñu ci war a def mooy làmb benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mbëri yéenante jàmm képp leen ci ndax bu xewu jàmm amee ñépp danañ fa daje gis nañ ko bërki démboo njaay ci xewu Balla Gaye 2 bi ñuy ñaanal doomam jooju yal na ci yàlla teg loxo yal na dund ba papaam fekke njariñam gis nañ ki demoo njaay ni fa axlu lamb yépp teewe xàmmewoo ki bokk ci écurie Balla Gaye ak ki bokk ci écurie Tay Shinga xàmmewoo ku nekk écurie Fass xàmmewoo ku nekk écurie Bombardier donc loolu di taxawaay bu am solo boo xam ne ñu ngi koy rafetlu di ñaan nag ñu applike ko ñu jëfe ko ndax bu xewu safaan amee it ñépp a fay daje gis nañ ko ci saraxu Papa Jabi kon mbokk yi loolu liñ ci war a jàngate mooy mbër yi dañu war a bokk ndey bokk baay warta yem ci wax rek warta ci làmmiñ ñu koy mbubboo di ko waxante nii rekk te àggut ci jëf yi ndax nag ci wàllu làmb dañ ciy gis ay mbir yu yéeme ay mbër di waxante wax joo xamante ne nii dana tax ñu bàyyi mbër àdduna ak àllaaxira te jaru ko mbër di weer moroomu mbëram ci mbir moo xam ne dana tax ñu bàyyi ko àdduna ak àllaaxira jaru ko mbër di bàyyi jege ñaaleem ndax ay tuuma bàyyi ko àdduna ak àllaaxira mbedd mum jaar dootu fa jaar loolu jaru ko ay mbër di ci defante lu lu metti lu yéeme ci wàllu mystique sëf nit wala def nit loo xamante ne nii tey bu làmb ji weesoo sax pour mu retrouver état de santé rek problème la kon li laay war a sóoli li ñuy jëflante muy rafet ñépp di ci teg seen bët nañ ko dugal ci biir xol yi di ko yéenante suñu biir loolu moom moo ëpp solo komba yàggul waaj wi moo yàgg mais làmb yàggut waaj wi nag fi la lépp di xewe ci la ñuy sëfe mbër moom tàggook sagoom ci la ñuy sëfe mbër ba dootul xam fan la ne ci la ñuy sëfe mbër ba jouru komba du xam kan ak kan ak kan la war a jëflanteel ci la ñuy sëfe mbër ba bu làmb jeexee mu continuer di faju mais loolu jullit ak jullitu moroom wala nit ak mbokku nitam war na war nañ ko rus rawatina ci wàllu làmb nga xam ne bu xewu jàmm amee ñu tase bu xewu safaan amee ñu tase kon loolu jàngat bu njëkk bi la ñaareelu jàngat bi muy mbir moo xam ne naqari nañu ba fa naqar di mbiru Jules Baldé Junior ñu koy ñaanal yal na yàlla fëgg boppam mu jóg delluwaat ci liggéey ba Jules Barlé ñépp gis na euh, mën naa ne réseaux sociaux yi mën naa ne internet bi sit internet yi tele yi rajo yi ñépp ngi wax ci kaam ci feebar bu mu feebar feebar bu metti loolu nag mbokk yi ñu war cee jàngataat njariñu làmb ndax làmb am na njariñ ñun ñu ci nekk ñu am fitu wax ko est-ce que làmb am na njariñ bu ma nee est-ce que làmb am na njariñ mooy tey exemple bi may joxe rek mooy Jules Balde na nag ñoo xam ne nekk nañ ci làmb ba dem retraite boo leen gisee da nga leen di yéene sarax bari na ñu nekk ci làmb ba bàyyi làmb feebar dikkal leen boo xam ne amuñu koppar gu ñu fajoo amuñu ndimbal dañuy mujj di leen ketal bari na fi ampagaay pagaay bii moom moo bees moo tax ñu fas yéene cee wax mais loolu bu amee dañuy laajte ana njariñu làmb waaw ana njariñu làmb ndax nag am na loo xam ne làmb moo ko war a fajal boppam làmb moo ko war a lijjantil boppam warta xaar kenn di ko ko lijjantil yàlla moom mooy tege feebar mën na ñëw à tout moment leneen ak leneen ak leneen mën na ñëw à tout moment donc fagaru moo gën faj faju olof dafa ne xoddeeku ca ba nga lakk léegut naka la ñuy xoddeekoo mbokk yi xool leen ci biir làmp ñaata association lañ fiy tudd da ngay tudd association des managers tudd association des promoteurs tudd association des amateurs de lutte tudd association des écuries tudd association des lutteurs en activité tudd association des anciens gloires tudd association des de euh, euh, nu koy waxee sax des promoteurs de lutte ay association association ngay tudd mais association yooyu tey ban taxawaay la ñu am ci mbër mu feebar ba mëna a la tudd boppam dara est-ce que jar na ñu génn làmb di sàkku ji ndimbal feneen te kuréel yi yépp nekk ci làmb man gisewuma ko noonu parce que nag lii mbooloo la association des managers des promoteurs des amateurs des lutteurs en activité des lutteurs euh, yi nga xam ne génn euh, bàyyi nañ làmb association yooyu yëpp ban ban taxawaay dëgg-dëgg lañ war a am ci làmb ba bu làmb soxlaa njëkk leen a gis rawatina nag CNG bi nga xam ne moom moo ŋànk làmb indexé wu ma kenn ah. duutuma baaraam kenn aussi waxuma kenn deful waxuma kenn waxut dafa gënoon a rafet tey bu dara dalee ci kaw làmb waa làmb njëkk a teew njëkk a fajal seen bopp te loolu ci lañuy ñuy séntu ñépp képp koo xamante ni yaa ngi ci làmb tey ci lañ lay séntu ndax loolu mën nañ koo tuddee manque d'encadrement waaw manque d'encadrement ci écurie bi nga xam ne tey Jules Balde mu nga fa manque d'encadrement tey ci koñ bi nga xam ne Jules mu nga fa muy koñu pikin manque d'encadrement ci association yi nekk ci làmb manque euh, d'encadrement tey ci CNG parce que nag ñépp war a booloo encadre mbër yi écurie bi naka la war a encadrer mbëram mooy tey képp ñépp xam nañ ne làmb amul retraite boo bàyyee làmb bu fekkoon ne dencoo bu fekkoon ne investiroo foo jëm loo am dañ la ko may kon nag mbër mi bu nekkee en activité encadrement bi gën ci encadrement yi mooy fexe ba dërëm bu mu jot ñu orienté ko fan la dërëm bi war a jaar fan ak fan la war a jaar naka nga ci war a investir ba ëllëg boo bàyyee làmb doo sonn doo sonal kenn mooy encadrement bi njëkk beneen bi ci topp mooy encadrer seen bopp de telle sorte que tey. écurie bi ku ci mën di feebar ak écurie bu mu mën di nekk li ci ëpp solo écurie bi dana ko mën a jëlal sa seen bopp parce que préparé woon nañ ko mais man dégguma benn écurie boo xam ne matuwaay yiñ war a jël dëgg dëgg dëgg ci mbër mu feebar teel koo commencé ba mbër ma feebaragut gisaguma ko ci écurie yi bu amee nag ñu xam ne sama ñàkk gëstu moo ko waral mais gisaguma ko. loolu nag war a tax ñu xoolaat sunub doxalin ñépp ah ñépp xoolaat seenub doxalin parce que solution yaa ngi fi bari nañ solution yaa ngi fi bari nañ li may wax rek warul xewe ci biir làmb ñu jéggi làmb ñaani njekk walla ñaani ndimbal feneen certes nit ku feebar doomu aadama nekk ci ay tolof tolof ñépp ko war a dimbale képp kuy doomu aadama war nga koo dimbale loolu ay jëf yu baax la ci la ñuy xaar ñëpp mais dafa am ñu ca war a jiitu gis nga sa kër buy lakk say dëkkandoo ñoo fay jiitu même au niveau du CNG am tey loo xam ne dañ koy dañ koy boolewaale ci licence yi ku daggati licence dix mille francs même bu nekkee ab deux cent cinquante wala ab cinq cent francs ñu génne ko ci loolu am fu ñu ko teg uniquement pour caisse sociale prévenir genre yu mer nii am naa yaakaar ne tey bu association yi yépp amoon caisse sociale ku ci nekk koppar na ca mu tuuti ak mu bari CNG aussi am caisse sociale mu tuuti ak mu bari écurie yi am caisse sociale mu tuuti ak mu bari kon bu mbër amatee ay tolof tolof toll ci état yi écurie ba bu ca jéemee ba fa dooleem yem association yi ñëw jàppale ko balaa moo génn làmb xëy na yàlla def li gën kooku jóg ci jàmm ak salaam mais tey bu nekkee dañuy seetaan rek ku am combat jël sa xaalis dugal sa poos lekk mu jeex doo xalaat suba parce que ëllëg a ngi ñëw mën nga tawat leneen ak leneen mën na la dab kenn xamut association yi aussi noonu saa yu opportunité amee ñu bàyyi xel li ñëwagul kon bu boobaa du ñu egsi fii ndax defal nañ ko fi ñu ne. te bëri na aussi ay anciens gloires yoo xam ne ni tey ñu ngi tëdd feebar ñii ñu ngi koy wéyaale ñii ñu ngi soox ak moom ñii ñu ngi tëdd ak moom te amuñu jàppale amuñu ndimbal ndax làmb amul retraite li may wax làmb amul retraite retraitu làmb mooy encadrement bu baax exiger la à que nga investir ñu bàyyi investissement yi ñuy def ci mystique bi am combat cinq millions jël trois millions def ko ci mystique dese 2 millions xanaa xalaatoo sa avenir. ndam lu mu neex neex neex neex neex sa avenir moo ko dàq te it am na loo xamante ne nii mën naa ne performance personnel la am na loo xam ne ci yow la loolu mystique àggu fa boo amoon ñi dàq ñaan ci àdduna bi te ni nga war a taxawee taxawee woo ko doole ji nga war a am amoo ko xarañ xarañteef nga war a nekk ca yow nekkul ca yow sa làmb mook zéro moo mën ngaa bëre ba bàyyi bëre te say victoire buñ ko limee ñu àggee ci ñaar arrêté kon nag war nañoo xoolaat taxawaayu mbër yi war nañoo dimbalewaan mbër yi mais mbër yi nga xam ne aussi ñu ngi jot xaalis nañu xalaat ne ëllëg mu ngi ñëw retraite mu ngi seen kanam te bu boobaa day gën a metti léegi nag beneen mbir xew na. boo xam ne mën naa ne mën na noppal ñu bari muy assurance vie assurance vie bi mbër yi mën nañoo assurer seen bopp parce que sport de combat la ñuy def sport de combat ku koy def di entraîner ay entraînement yu metti te entraînement yuy metti ku koy def ku ne rek exposer nga sa bopp à tous les dangers dangers yépp nag yal nañ ci yàlla musal. façon tolof tolof buy dal athlète mën na la dal kon war nga waajal sa bopp war nga waaj war nga xalaat bu baax ci sa carrière nga assurer sa bopp assurer sa bopp tey ba lépp lu la mën di dal sa assureur ñëw taxaw mën la dimbali loolu nag mbokk yi jàngat bu yaatu la boo xam ne ñun waa làmb yépp ñun ñoo ko war a def def ci taxaw seetlu ku ci nekk indi ci sa xalaat CNG indi ci xalaatam naka lañuy def ba éradiquer problème bi managers yi indi ci seen xalaat promoteurs yi amateurs yi mbër yi ñépp ñi yëngu ci wàllu làmb ñu indi ci seen xalaat teg ay actes yoo xamante ni nii mbër mu ci feebarati wala mbër mu nekkati ci ay tolof tolof balaa kenn teew waa làmb teew ba tële doog a woon dimbal buñ tëlewut ñu xam ne noonu la parce que nag li xew ci biir kër gi ci biir kër gi lañ ko mën a régler buñ jëlul suñuy matuwaay régler ko ci biir kër gi ba bàyyi mu jàll génn ci biti ñu régler ko it doonu du doonati sag du sag te bu boobaa danañ laajte làmb ana njariñam xale yi bëgg a dugg ci làmb tey bu ñu xoolee seen mag yi ku ci bàyyi làmb amatoo xaalis buñ la mayut amoo dara ku ci dem ba retraité nekk ense gloire amatoo xaalis boo feebaree doo mën a faj sa bopp kon làmb dana dana rafle ay mbër làmb dana tumuraanke ay mbër parce que nag njariñ loo fekke beneen taxawaay bi mooy mu war a am ay mutuelle de santé ci biir écurie yi écurie yi am ay mutuelle de santé mbër yi inscrire ci mutuelle de santé yi di cotiser parce que mën na leen a jariñ lu bari nag feebar day taxaw leneen ak leneen day taxaw bu boobaa fekk fàgg nga loo xamante ne nii wala fàggu nga loo xamante ne nii mën na laa faj kon ñu amaat jàngat ci doxalin bi amaat jàngat ci niñ leen di téye. Jules Baldé Junior nag ñu ngi lay ñaanal borom bi nga xam ne mooy maye ku fi am moo la may ku fi ñàkk moo la xañ borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi ñaan yal na la wëral nga delluwaat ci sa njaboot delluwaat ci sa liggéey nga delluwaat ci sa état de forme delluwaat ci sa jàmm ak sa salaam ndax soxla nga ko ñun ñii soxla nañ ko bu ñu sañoon kenn du tawat rafetlu nañ aussi nit ci ñépp taxawee ku ci nekk yaa ngi wone ne Jules sa mbokk la loolu rekk dafa doy lépp ku ci nekk tey yaa ngi koy fësal ñuy def téléthon di ñaan ñépp di ñaan ndimbal borom bi nga xam ne moo mën a dimbale yal na nu dimbale borom bi yal na wëral Jules Baldé mbokk yi jàngat bii di ñëw bu soobee yàlla dina ñëwaat ak yéen wala danañ ñëw ak yéen ci ni mu gën a yaatoo ci làmb ji nga xam ne commencé naa perte ay ay ténor commencé perte ay mbër yu mag commencé perte ay mbërantaan ay mbër yu xarañ ñépp daw ñii États-Unis ñii Espagne ñii France ñii itali loolu danañ ci ñëw ak yéen lan moo ko waral ak lan la mën a jur ci làmb kon mbokk yi jërë ngeen jëf Basirou Diouf moo doon àddu ngeen di teewlu ñu leen di jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ko Wassare Lamb saa su nekk cant ngërëm ñeel na leen ngeen mën a abonné nag activer cloche bi bu ko defee lépp lu tàbbeeti ci wàllu làmb ngeen mën koo jariñoo ñu mën cee jariñoo jërë ngeen jëf ba beneen yoon. Prod présente l'événement de l'année à Dakar. Deux talents, les deux frères réunis sur une même scène pour pour la deuxième édition du Festi Dakar, Rahu Prod vous offre une première mondiale. En exclusivité à Dakar, Gims Dadju, le samedi décembre, sur l'esplanade du Musée des Civilisations, réunis pour un moment d'exception.